Euh, retour au direct avec euh, notre édition spéciale sur euh, l'affaire euh, ou l'affaire Suite Beauté qui oppose Ousmane Sonko à la masseuse Adi où euh, il était question aujourd'hui euh, donc d'une confrontation devant donc le juge d'instruction entre euh, Sarr euh, et Ndeye Khady la patronne donc de suite Bouti. sans plus tarder Denis dellu fa nga palais de justice te ñu son donc son équipe est en place actuellement Abba ak Papa donc ils sont sur place pour nous faire vivre voilà, donc l'ambiance qui règne euh, aux alentours euh, du palais donc, de justice. Et euh, la profond dara tellement ay da ngeen ci mooy ban yéeg ci yéeg la yéeg demee noonu di waa jooju la wala wala muy sos la wala muy sos waaye bu dul sos waaye bu dul sos Ibrahim Mamajita. Amin. ഞാൻ ടിക്കറ്റ് വരാറുള്ളൂ Gracias.

Euh, gis nañ tout va bien ça dit le le ne actuellement donc ci côté vous donc pour le moment tout se passe bien et que voilà euh, noté wuñu donc ben débordement donc ça est là et je pense que si ça continue comme ça donc euh, on peut dire que ça augure donc des bonnes choses ou même donc un lendemain meilleur donc par rapport à la suite à donner à cette affaire bon dans l'immédiat comme le ñu du def donc lu dul euh, nekk nous nu encore là donc braqué au niveau du palais donc de justice euh, pour euh, xam exactement au sortir wala tout ces cadre confrontation bi li nga xamantene bi donc jot na fa sundi ci walu xibar waaye ben peut-être qu'on va faire une petite rétrospective donc par rapport à tout à l'heure moy information yi nga xamantene bi jotone nañ ko y de cela une heure ou plus euh, qui euh, un des membres donc de PASTEF euh, qui se trouvait être au Canada un certain Ousmane Ba donc lancé lancer un appel à l'endroit donc des activistes pour nous gagner. donc et puis siwol aussi Bep audio yi nga vous bi donc ñu que actuellement au niveau donc du bureau donc du juge ça va pas comme adresse encore l'avantage donc du leader donc de PASTEF donc ci jangat bi nga xamantene bi donc mun nañ ko def euh, ci euh, sortie kii di Ousmane Ba donc euh, du moment que aussi kidi di Ndeye Khady Ndiaye ak mi nga xamantene mom lañuy confronter confronté ak Adji Sarr mun nañ jàpp ne rek fu mu ni nii y a une forte tension là-bas. donc diggante ñaari ki yooyu kii di Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye te Ndiaye Khadi finalement dafa mujj ci ay joy donc kon mun nañ ne rek fu mu euh, comme lu lako la ne lu len leen sank rek euh, ci euh, direct bi par rapport image yi nga xamante bi donc ñoo ngi jot modi di fu mu ne nii donc tek tekk tekk donc lañu nembeku donc on peut dire que le climat est au calme donc am na une stabilité parce qu'on voit même donc des voitures qui passent donc ça veut dire que pour le moment tout va bien dans le meilleur donc des mondes. Voilà, et puis c'est tout ce que nous souhaitons d'ailleurs, qu'il n'y ait rien, que bon, donc les choses se passent, euh, tu vois, donc dans ce qu'on appelle un gentleman agreement. Voilà, donc, on euh, nous donc interview. Ok, waaw doo ko woo mu ñëw père. da koy laaj dañ na ko en tant que jour. waa ayca jërëjëf mbokk Yegle TV ah ñuy suivre bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ngi fii comme ni lañ ko waxee fii si Yegle TV fii si nga xamante ne moom mooy palais de justice bi ngeen di am information bi en temps réel grand maa ngi lay nuyu. maa yaa ngi si jàmm. Ah, yaa ngi en direct foofu sa plateau édition spéciale euh, fii si euh, Yëgle TV mhm. ñu am mbégte ak contentement bu bari bëri fas yéene laa laaj ci li nga xamante ne moom mooy euh, polémique polémique ah, defe naa ni depuis si ah, suba ba tey yaa ngi fi. intéressé na Sénégalais ay suba ba léegi lan moo fi jot a am si li nga xamante ni moom mooy euh, problème mu Adji Sarr waaw suba nag euh, Adji Sarr fii la ñu fekk bu ñuy ñëwee ñu yegg si fii ay boori onze heures ànd ak maître El Hadji ak ñoom Gabriel Kane féministe aussi amoon na benn mobilisation quelques dizaines de partisans de Adji Sarr wax seen pancarte di ko di ko soutenir Adji Sarr dañu ñëwee si dox na Adji Sarr famille muslim ñu ko won untuk suñu côté kon ñu jàpp ni ñoom bu ñu duggee ba tey si biir di def seen seen liggéey si si si li moom mooy jafe-jafe bi kon kenn ba tey kenn génnul ñëw leeral li nga xamante ni moom mooy taskatu xibaar yi jox leen information yi kare. waaw kenn génnagul kenn génnagul ñu mën a jàpp mooy ñu ngi ci parce que confrontation la diggante Adji Sarr ak Ndeye donc ba léegi nag kon ñu ngi ci biir bureau doyen des juges ñoom ak ñu jéem a am seen avocat ba xam ne ñu lan moo tukkee jërëjëf. ayca mbokk wentoon ci Yegle TV foofu plateau bi di euh, édition spéciale si jafe-jafe li nga xamante ni moom mooy euh, Adji Sarr bi defe naa ni monsieur Timéra dégg nga kàddu yu am solo yi nga xamante ni suñu confrère journaliste yi yëkkati na ko. Mm-hmm.

tontuwaat waaw ñoom wax nañu depuis si depuis si suba ñoom ñu ngi si waaye jotuñoo jot am li nga xamante ni moom mooy quelque information si li nga xamante ni moom mooy problème li ñuy jot a régler si biir waaye nen ne suut xëy xëy na fekk ci kanam dinañ am information yi daal di koy baaxee ñi nga xamante ni ñooy presse sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo fi waaw waaw dinañ jéem a dinañ jéem a def ni ma ànd seeg suma cadre bi ñu jéem a xool euh, ñañ mën a am ñu ñu daal di waxtaanee li nga xamante di sini Wow, wow, wow, kurlamu ma darah, darah dara darah amu gufi dara amu gufi ma kurlamu wa waaw sànq information buñ joxe kan ya ñi nga xamanteni ñom ñoy and ak aji sar ñu ngi fi won ak ñi nga xamanteni ñi ngi and ak ki nga xamanteni mom moy ismaël Sonko c'est que ni amon na mal entendu mais après jot nañu calmé wu dal lolo fi jotona am comme information. si biir loolu sax euh, maa ngi si euh, alentour bi ndax booy xool nii sama ginnaaw booy xool nii sama ginnaaw fii fii ñi nekkoon euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëwoon di jàppale Adji Sarr ñoom ñoo nekkoon di jàppale ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko fu mu toll nii na dara neew fi force de l'ordre rek ngay am noonu ci nga xamante ni moom mooy suñu kanam noonu caméra Voilà. Mhm, mhm. Mhm. ñu ngi noonu mi ngi noonu image yaa ngi ni gisoo fii la ñi nga xamante ne ñoom ñooy militant wu Adji Sarr nekkoon fii la ñi nga xamante ne moom mooy euh, militant wu Ousmane Sonko nekkoon waaye mu toll nii nag mun wax ni kalm calme am na fi ñëpp ñi nga xamante ne nekkoon nañ fi kenn ku nekk ñibbi nga sa kër daal. du mois de parce que weeru koor lañ nag bul fàtte. bon nit ñi benn instant nga xam nga bon surtout léegi. Mhm, waaw. Mm-hmm. bon di nga am euh, ki nga xamante bi bii gaan xam nga bon dina am cadeau ti vois buñu bu ñu ci li nga xamante mom modi moo di euh, édition spéciale bi nga xamante mom moom def tay euh, ci confrontation bi am actuellement diganté Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye parce que wax nga ko sank nga né ba légui gaay ils sont donc dans le bureau donc du doyen donc des juges donc ça veut dire que donc l'affaire suit son cours. am nañ ci am nañ ci yaakaar na bu ñu xoolee force de l'ordre yi ni ñu ni ñu jëlee seen matukaay. ku nekk teel la ñëw daal di taxaw sa poste wane ne ni maanaam eh, ñoom dinañ dinañ def le ba jàmm daal di am si li nga xamante ni moom mooy atte Adji Sarr bi xam naa dañ leen di bàyyil eh, eh, antenne bi foofu édition plateau spécial bi foofu ñu bàyyi leen antenne bi rek lu fi xewaat rek daal di leen koy indiwaat incha allah comme euh, fu euh, je pense que nous sommes aux alentours donc du palais de justice euh, donc j'imagine que on va on va retourner tu vois donc à la base après peut-être que on va revenir plus amplement parce que comme fu il y a personne donc sur place. Bon, j'imagine que donc on peut on peut retourner donc au, à, à la régie donc euh, tamit euh, ñu santé le gërëm la ci li nga xamantene bi euh, liggéey bi liggéey bi ngay def ni actuellement donc sur sur le site au niveau donc du palais donc de justice donc aussi donc peut-être remercier au passage aussi suñuy téléspectateurs yi nga xamantene bi depuis ce matin ba légui donc ñoo ngi ànd ak ñun ci li nga xamantene mom modi suñu édition spéciale bi donc bu ko défé gaan xam nga donc ñu ñaanalante et puis on se donne rendez-vous ultérieurement inshallah